waaw salaamaaleykum waa Medina waaw di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ak ñëpp ñu fi teew waaw balaa dara nag may présenter bureau Medina mbooloo bi su mel ni Baba Diaw muy suñu président secretaire général bi vice président waaw ñi si des ci membre bureau bi lañ bokk ñi ay président organisation lañ waaw suñu mbër ngi nii taxaw Diène Kayré waaw ñëpp a ngi fi daal ay ñoom Kayré ak ñëpp. waaw woote bi li ko waral du lenn lu dul euh, fan yi nii ñu génn jamono ji ñi ngi seetlu bu baax ci Facebook beeg Instagram beeg fu ne da ngay gis ay doomu Médina ñoo fiy nekk di saagante di xastante di waxtante lu ñaaw te comme ni ñu koy waxee rek am na yenn wax ya nga xamante ne buñ ko bu dugg ci internet bi dootul deñ kon lépp la nga xamante ne dañ koy wax ñun suñu biir surtout waa Médina war nañ ko mën rafetal ndax depuis yàgg na loolu lañ ñu mës a xamee Médina wax ju rafet jëf ju rafet. ci loolu la ñu xamee ñu ciy dox nekk ci di ci wax ñun ci loolu daal la ñuy dox di wax nag ñaari parti yëpp liñ bëgg mooy saaga yeeg xastante yeeg yooyu noonu ñu dakkal ko te xam ne Médina buñ buñ ñu jéem a woo ci lool noonu ndax am na na nga xamante ne xëy na am na ñu koy monter ci suuf mais loolu noonu ñun lu ñu ko buñ sañoon ñëpp doon benn xiiroo beeg ŋaayoo beeg lépp jeex. ay doom Médina lañ tey duñ nangu kenn du yàq suñu Médina. duñ ko nangu duñ ko nangu moo tax maintenant ni ñëpp génn doon benn ñu booloo doon benn xam nga dafa suñ maintenant lancé appel la maintenant benn bopp la te kenn mënu ko xal ñaar appel boobu duma si dëkk chaque jour moom laay wax te lu ma gëm la maintenant benn bopp la xam nga àdduna loo gis waxtaan la dañu waxtaan suñu biir ñu doon maintenant yi xool nu ñu jëmee maintenant ka xam politiciens war nañ ñu mën woo sax si yeneen yeneen yeneen débat yudul yii nii yii ñuy dégg fan yii nii ay problème mu terrain ay problème mu yenn affaire ak ñun loolu du suñu problème xamal la ñuy wax ci liñ bëgg mooy gis nga Soumbédioune bii daam boo fi demee di nga gis mool yi ni ñuy demee ak seen gaal yi ni ñu demee noonu la ñuy teeraatee ñibbi si zéro duñ jàpp dara te xam nga ne mool bu amul mareyeur du am kon loolooy secteur boobu noonu daanaka dee na nañ fexe nuñ ko suqalee boo duggee village artisanal ku xam ne village xam ne village ni mu daan doxatee bu njëkk ba ak léegi bokkatul ndax lan tunnel bi jaar ci suuf nañ fexe loolu noonu ñu indi ci ay solution bu njëkk ba daam secteur éducation Médina boo daan wax da nga daan génnee benn ñaar ñett Médina ñeent ci ay ndaanaan mais léegi jàng bi ak jàngale bi tuxu na tey fan lañ koy wax ay Limamou Laye ngay dégg ay lycée Abdoulaye Sadji ay Mariama Ba pour lan daam waxuma la dara mais daam boo feebaree ba dem euh, polyclinique mais dañ naan la dañ dañ naan la fees na polyclinique fees na lañ lay wax fan ngay rabaatru Elisabeth Elisabeth lan moo fa am dem fa ay weñ nga fay fekk matelas yi amoo foo tëdd mais yooyu noonu yëpp nañ ñu si jéem a apporter ay solution jamono yu ñu toll ñu ngi dégg président de la république di wax waxu ay milliards ya nga xamante ne dañ koy financer jeunes yi pour emploi des jeunes mais ci loolu noonu ñun Médina liñ ñuy tardel di ñu wax ci yenn débat yu inutile yi nañ dajale jeunes yi organiser ay ateliers ay té débat jéem leen expliquer nan la ñuy def ba projet yooyu noonu nan lañ koy bindee jeune Médina boo fi fëgg mi ngi quatre cinq projets si boppam mais loolu noonu nan lañ ko mettre nan lañ ko war a mënee mettre en valeur ci loolu noonu organiser ay atelier ay tee débat expliquer gars yi ñi mënul bind projet ñu jàppale nu ñu ko bindee financement yi mën dugg si Médina ñun ci loolu lañ taxaw.